mel ni sëñ Ousmane Gueye rek euh, doo xalaat kenn booy reer daal na fexe ba rek rek waaye ki nekk ci sa wet moom xalaatoo ko nee nañ ko loolu am na ay daan sax yoo xam ne nit ñi des na lañ ko ci teg mel ni ñoom ñii muy kësinaar yi toog nañ taal wala ñu yor lu ñu waroon a dunde jékki-jékki am buy wuxu ngirum xiif ñu ne kooku kan la ñu ne kooku de ab jirim la amut lu mu dunde amut ku ko taxaw mu ne jël leen yóbbu mu taalaat am ku nekk ca kaso ba moom it di bind ni ndax ab xiif mu ne kooku kan lañu wax ko ko mu ne foofu leen yóbbu kooku ba muy ñetti yoon nga xam ne la ñu naroon jëfandikoo ca bis booba dañ koo jël jox ko ay nit ñoo xam ne ñoo ko gën a ittewoo kon loolu luñ war a jàng la léegi nag mel ni boo dëkkee ak sa dëkkandoo ñu lot du néew kàttan la ngay def da ko koy wan di ko ko xoy ngir mu xam ne yow mi yaa toll nii waaye yàlla day ku jóg ngir sóobu aw yoonam faaw loola du doon sa melokaan wooy war a làmb